am ay gaañu gaañu yu métti loolu day lañu ñu nemeef ci accident bi am ci cortège Pastef bi ci talaata jii mbir yi mu ngi am ci diggante dalangaabu ak daaru nayim ci dëkk bu ñuy wax dàgga comme ni ñu koy defee depuis bu campagne bi tàmbalee ak léegi di wër département bi cortège bi mu ngi bàyyi ko woon ci seen quartier général bi nekkee ci Mbàkke wutali woon Daaru Naim bi ñu yegsee dalangaa bu jëloon ranran bi pick-up bi nga xam ne dafa yeboon ba fees di daw lu bari ci la xalangu fi tolloo ak dàgg mu jur kenn ku ci ñàkk bakkanam ci saa si Moodu Taal di am militant Pastef fekk baax ca quartier Sam fukki nit ak juróom benn am ci ay gaañu gaañu ñu rawale leen ci hôpital yi di Cheikhul Khadim ak Matlabul Fawzeyni militant Pastef yi ci bari dem nañ nag ngir may leen deret coalition Pastef ci njiitalu seen tête de liste départementale Serigne Cheikh Thioro Mbacké jël dogal ne dakkal nañ seen campagne ba jëmmi jamono gendarmerie bu Mbacké daal di ubbi ab l'enquête